daa leen ko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 ala tariqil jannati mu jaar ca yoonu aljana de nee bokk na ci juli julli ci bi ki koy def ci boppam yàlla day musal bakkanam ba dem ci lu koy toroxal mukk lu mel ni rey nit xam ngeen ne bakkan sib na ko lool donte dana ko def booy julli ci yonent yàlla musal la ci lu mel ni xeeti xeex yépp ak xuloo yi booy julli ci yàlla mën na la ci musal sun borom nee na kutiba aleykumul xitaalu woo kurun lakum wa farataal nañ ci yéen xeex te bakkan lu sib xeex la bakkan dafa sib di dajeeg moru bakkanam di ko rey boo julli coot bi yàlla dana la musal lépp loo xamee ne day toroxal bakkan bi rek te loolu mën naa yóbbu nit ki safara booy julli coot bi suñu bara mën na la ci musal waaye day xëcc bakkanu nit ki jaarale ko ci yoonu aljana mu mën a ne coow ci yoonu aljana ba keroog muy taay ba aljana de loolu kon julli coot bi da koy def de. ba tey bokk na ci la muy def mooy watun ji dana musal min saril majlisi ci ayu aji jotaay ji àll si aji jotaay ji nga xam ne laa yuskaru tuddut fii ci biir jotaay boobee ismu laay turu yàlla taala yàlla mu yaaji kawe wara a sóoli ak yonent bi wa yox ji dana ko génne aaw bi ci jotaay boobe mu toog minal jafaay ci lépp loo xam ne bi ci ngël la ba du def ci jotaay boobee nee na ci yonent bi bokk na ci ay njëriñam mooy ki nga xamee ne aaw toog na ci ab jotaay mu tudd suñ borom juli ci yonent bi moromam ya fa nekk tudduñ yàlla julliñ ci bi seeni xay ci jotaay boobee nga jotaay sun borom dana la dana la ca musal de ndax bépp jotaay boo xam ne jotaay nga fa tuddoo yàlla julli ci yonent bi jotaay boobee seytaane am na fa wàllu yonentu nee na ñaar fuñ mën a toogee seytaane ne leen ñetteel waaw ñett fuñ nekk seytaane moo leen ñeenteel ñeent fuñ nekk seytaane moo leen juróomeel yàlla itam noonu la wax képp ku toog di diyanteeg man moo xam nga nekk ñaar na ngeen xam na yàlla moo leen ñetteel bu ngeen nekkee ñeent yàlla moo leen juróomeel bu ngeen nekkee juróom-benn yàlla moo leen juróom-ñaareel wax nañ ko ci sóoratul mujaadala kon jotaay boo toog rek te yàlla rek a tax yàlla nga fa de waaye boo toog te yàlla taxu tuddoo fa yàlla julloo ci yonent bi seytaan nañ ko de kon nag boo tuddee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi jotaay boobee xay ña fa toog ñëpp suñu borom dañ la ci musal de dañ la musal ci lépp loo xam ne day yàq jëf lu mel ni xeeti bëccëgal ak yooyu wa anna naka moom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la gën a néew ca la néew mu bàyyi ko ci xaq sun borom subhaanahu wa taala yi mu bàyyi ci xaqam wa sukurulaay ak cant yàlla maa maa àndoo ànd ko nga ko moom yonent wasalaama ak dolli wóolu yastahiqu mooy dana yeyoo maaloo xamee ne laa yun saa kenn mënu koo takk gën a bëril julli ci moom rek mu gën a baax wala ci li fi nekk subhaanahu soril naa ko lépp lu yellu ci moom moom yàlla radiya dafa gërëm rek mi naa ci ñun bilie si ci ak yomb yomb min sukuri ci ak cantam wa addaay xaq yi ak joxe ak joxe li nga xam ne moo di wa annaa nakum julli ci yonent bi sababun dana sabab li ruxyati ak gis ak yonent sala yàlla na julli yàlla alay ci kaw yonente bi wasalaam te mu dolli koo la de nee na li gën a néew ca la gën a néew na julli ci yonente bi sallallahu alayhi képp ku koy def waaw yaa ngi sant yàlla xàq bi nga xamee ne moo dox sa digganteeg sa borom mu digal la ko ngir nga war a julli ci yonente bi sallallahu alayhi yaa ngi koy joxe xéewal gi nga xamee ne yàlla waaw xéewale nañu ko waaw yaa ngi joxe xéewal googu di ko sant ci waxtu ne te xéewal yi gën a màgg yàlla jox ñun xeetu yonente bi mooy yonent bi salaay salaam waaw lépp lu ñu am itam ci barkeem lañ ko amee yàlla xëj na ko xeet wu ne may na ko ñun xeetam wi waaye nag ña ko topp itam ñoo ci gën a am jagle kon nag kuy julli ci yonent bi salaay salaam yaa ngi sant xéewalu yàlla yi nga xamee ne waaw xéewalee na la ko de waaye nag yonent bi salaay salam moom lépp lu ko waaye julli ci moom rek wala nga tagg ko ko kooku moom waaw da de. waaw yee na loo xamee ne kenn du ko mën a takk ndax xoolal ñuy julli ci ñoom ñuy julli ci moom bis bu ne rek loolu kenn mënu koo takk de waaye nag yàlla bu waxee loolu rek ne jull leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool benn jaam rek ne jull ci moom nee na ah daf ñoo gërëm rek daf ñoo bëgg a gërëm daf ñoo bëgg ak yombal rek suñu mbir waaw dàqal ñu mboolem lu jafe-jafe dafa bëgg itam yombal suñu cant dafa bëgg itam ñuy joxe suñu xàq ci moom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci yonent bi dana sabab jaam bi koy def bu tëddee ci ay naraw ah buy bëri li julli ci yonent bi ñi wan ko jëmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de te yonent wax na ci hadis boo xam ne hadis bu wér-wér la nee na képp koo xam ne gént na ci ay nelaw gis ma kooku de seytaane man fu melu la sama jëmm ji xam ne man la gis de ah borom xam-xam yi nag commentaire nañ ci ñu ne gis gi lam na namu moo ñu ne balaa moo faatu balaa ngaa faatu yow mi ko gént waaw ci ay nelaw balaa nga faatu da ko gis ci bët ak bët de ñu ne déedéet mënoo ko gis mukk ñii na lu dul yowmal qiyaam taxaw de keroog bis penc bi waaye loolu suyuti yu moom aw dàq na ko de nee na bis penc moom ñëppay gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem kuy xeetan ak dana ko gis ñu ne kon gént googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp ku ma gént ci ay naloo ma gis waaw xawees nga may gis ñu ne xawees nga may gis googu li muy tekki rek mooy bala ngaa faatu da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam de kon julli ci yonent bi bokk na ci li muy sabab mooy boo tëddee nelaw di jeeneer jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax li ngay tudd ci sa xel bu yàggee rek boo nelaw moom ngay xalaat ah mu ngi noonu de isa qaala ndem wax na almusuli aji julli ji ne allahuma yow sunu baram sall yàlla nga sax di julli ala ruuhi sayidina ci kaw ruuh sunu sangay mahamadin turam mooy mahamad fil arwaahi ak ci biir mboolem roo yi wa ala ak ci kaw yaramam bi fil ajsaadi ak ci mboolem yaram yi wa ala qabri ak ba fil qubuur yi ak ci mboolem bàmmeel yere mu ne saa boo xamee nit kiy julli moo xam man wala yow mi may déglu wala ki koy jullee rek mu ne saa boo xam ne yaa ngi wax waaw ñaan gi te mooy salaatu ala nabi la yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci ruuxu bu yonent bi nga xam ne mooy sunu sànq bi trop mooy Muhammad yàlla na nga julli ci mboolem roo yi buñ na benn roo la mooy mufrad mi buñ na arwaan ak mboolem roo yi de waaw ah, waaye nag yàlla na nga julli ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yaramam yëpp waaye nag yàlla na nga julli ci mboolem xeeti yaram yi buñ na jasad mooy mufrad mi ajsaad mooy jamho jasad waaye yàlla na nga julli ci kaw bàmmeelu yonente bi ak mboolem xeeti bàmmeel yi buñ ne alxabru benn bàmmeel buñ ne xubóor nag mooy bàmmeel yëpp foo dem rek xubóor la aw waaw bàmmeel rek kooku xubóor lañ koy wax bu benn bàmmeel nag koo xam ne kenn nit lañ fa denc la ñuy wax xabru de kon gis nga salaat googu nu amee doole mu ne allahumma yow suñu borom yàlla na nga jotal ruuxa muhammadin ruuxu yonente yàlla muhammad mi ni jëlee ci man tahiyatan ak nayoo wasalaaman ak sëlmal te mooy nayoo gi mooy julli rek dolli teral ak dolli njéggal waaw dolli xéewal mu ne yow suñu borom yàlla na nga jotal rooxu yaan rooxu yonente yàlla Muhammad mu bàyyi ko ci man ak na yow ànd ak sëlmal kon yow booy julli ba tey na nga xam ne sëñ Tuubaa waxut yow yaay wax de boo ne allahuma balix ruuxa muhammadin mini ta wa salaaman dafa mel ne yaa wax yàlla na ko damaa bëgg man mii di julli ci xasidi gi nga xam ne mooy faasul mutti sama julli gi ak sëlmal gi na nga ko jotal ruuxu yonent yàlla muhammad bu ko jotal jëmm ga de kon ruux gi moo koy capture ruuxu yonent bi yàlla moo ko koy envoyé ca sans mu jot ci ruux gi capture ko de ñu xam ne a ah, ah, diw sàngam doomi sangam dëkkëb sangam kër sangam a ah, julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te roogi yëg na ko de su ko defee roogi moom it dala ko dalay la sëlmal gi de te loolu tawfeexu saayir ak baatin yëpp la lay jural de moo tax ne allahumma yow suñu borom balix yàlla nga jotal rooxa Muhammad rooxu yonente yàlla Muhammad bi nii mu bàyyi ko ci man te yeetan ak nuyoo wa salaaman ak sëlmal foo toll daa rooxu yonente yàlla Muhammad na ngay sotti ci kaw roogi li nga xamee ne moo di jàmm ak li nga xamee ne mooy sutura li nga xamee ne moo di xéewal ci wa sawbun dana sabab li ilqaa illaahi dajeg yàlla taala yàlla mi aji kawe asanaawu tagguk yàlla alxasana wu di aji rafet lil musali mu jëmee ko ci ki nga xam ne moo di aji julli ci yonent bi lil musali ñeel aji julli ali ci yonent bi bay na samaay ci diggante ñooñ asamaan wala ardi ak suuf ndax li annal musali naka aji julli ji taalibun aji saf ko la mina laay ci yàlla an yes ñee mu tagg laa rasulu yonentom bi woyu sirifoo tamu dolli koo taral wal ji ta tamu dolli koo pay min jinsil amali aaw ci xeeti jëf yi de falaa bu da kon mantu ñàkk nag an yam solo moom mu am lil musli ñeel aji julli ji naw xon aw xeet min saalika ci loolu de intiha fii la jéemee nag muy salaatu gi ma la wax xam nga dalaa waxoon salaatu gu am solo te mooy allahumma salli ala ruhi sayidina muhammadin fil arwahi wa ala jasadi fil ajsadi wa ala qabri fil quburi mu ni saa boo xam aji julli ji wax na salaatu gi dolli ci allahumma balligh ruha muhammadin mini tahiyatan dégg nga wa salaaman nee na su ko defee nag loolu dana waral sabab moom kii julli julli gii dégg nga de aw tagu yàlla wu rafet bu dajeeg yàlla ak taggu ak ak taggu yàlla wu rafet. ah woo xamee dana ko tagg ci diggante waa asamaan ak suuf ñëpp yàlla da koy tagg ci waa asamaan tagg ko ci waa suuf yëpp ndax aji julli ji bam jullee julli gi ba noppi dafa mel ne dafa sàkku ci yàlla mu tagg mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa sàkku ci yàlla mu tagg yonent bi dolli teral dolli ko pay ci mboolem xeeti jëf yi de kon nag sëriñ bi nee na mantu ñàkk moom aji julli ji mu am ci xeet yooyee de xeet yooyee mantu ñàkk mukk mu am ci de ndax ba nga jullee julli rek bi ngeen ne roohu yonent bi dañ cee tegaat mboolem roo yi te kon mel na ni yow day delluwaat sa roo ba nga ne wax laa jasidi fil ajsaadi ba tey delloo nga ko sa bopp ba nga ne wax laa xabri fil xubur lu mu yàgg-yàgg da nga dugg ci bàmmeel ba tey day dellu ci yow ba nga ne allahumma bali ruuxa muhammadin minni tahiyatan wa salaaman nuyoo ba nga nuyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sëlmal ba tey day dellu siwaat ci yow tax kon mu ne ba tey dana sabab saa boo xamee ne dajee nga yàlla yow mi julli julli gi taggu yàlla wu rafet mu taggu ko ki nga xam ne moo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo koy tagg ca malaayika ya tagg ko ci ñi nekk ci waa suuf ne waay waay xool leen sama jaam bi nga xam ne moo julli julli gi de waaw kat dafa sako ci yàlla moom ki julli julli mu fay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dolli koo teral dolli koo pay ci mboolam xeeti jëf yi de kon nag nee na nag mantu ñàkk nag moom aji julli ji mu am ab xeet ci loole ñu tudd de bu faatoo dégg nga de xéewal di ko fekk ci bàmmeelam heure bu ni suñu borom di def ci yaramam jàmm fu mu a nekk suñu borom di ko tawféexal kon mantu ñàkk xeet yooyu yëpp xeeti jëf yooyu mu am ci la garabum julli julli goog de mu ne intihaa fii la jeexee nag mu ne fa xaasaa lii nag awaanu suroxe mooy sama njëlbeen ak soobu fil maqsadi jëm ci la ma tax a jóg walaahu yàlla almustahaanu mooy ki ñuy wa waali ci moom dong tukulaanu la ñuy sukkandiku wala xawla déet xeeti pexe wala xóota déet benn xeeti kàttan ilaa bii lu nekk na ci moom de. mu ne nag lii yëpp dama doon leeral rek boo jullee ci yonent bi yow aji juli ji li nga xamee ne moo la ciy fekk ci saay rek waaye nag amal li ci fekk moom kenn mënu koo xam lépp kenn mënu koo wax mu ne kon nag maa ngi demee yow ci salaatu ala yi ma tax a mu ne lii nag mooy sama njëlbeenu soobu ci li ma tax a jóg mooy li ma tax a jóg dëgg-dëgg nga xam ne moo ma tax di taalif xasida gi nee na nag maa ngi dimbali ko ci yàlla di wëkkeelu ci suñu borom ndax xam naa ne pexe kattan moom ci yàlla rek la nu la nekk waaye nekkul ci benn jaam de. mu ne fa xaasi lii nag kayfiyatu salaat yi mooy yoonu julli yi maanaam boo déggee kayfiyo mooy melokaanu mooy yoon wi koy defee. loolu la ñuy wax kayfiya mooy yoon wi nga xam ne moom nga mën a jaar bu julli julli yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu mooy yoonu julli maanaam melokaanu julli yoon wi nga war a jaar ba def ko mooy lii te mooy bismillah yi sos na ma sama wax ci tàmbali turu buur bi rahmaani buur bi xéewalaa koon bépp mindeef ci àdduna arahim bi aji yërëm ko soob ci alaxira sala yàlla na sax dàkk di julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang muhammadin turo mooy muhammad wasalama tamu dolli koolu tasliman dolli inna laaha naka yàlla wa malaayikatoo ak mala yusalluuna danañu na dàkk di julli ala nabi ci yonent bi kon nag yaa yàlla si ne ee yéen gaa ñi nga xam ne amonoo gëm ngeen yonent ak alquran solo na ngeen di julli ali ci yonent bi wasalimoo ta ngeen sëlmal tasliman ak sëlmal de sëñ Tuubaa neen la bayka yow yàlla wuy naa la ci gannaaw ba nga wootee rabbi yow sama borom wasan dayka yow mi nga xam ne texeeg adduna ak alaxira wal xayru ak yiw yi kuloo yëpp bi yee dayka nekk nañ sa kàttan ko man sëñ Tuubaa mi ma doon sab jaam rek addañ fa buy aju benn ya dekk toroxlu sa kanam mu taaridan di aji gaaral si nag li na fadlika bon li nga xamee ne moo di sa ngëneel de mbir moom mooy aji wekk nag ah, waaw xaleyka ci yow islaa xaali yiwnu samay mbir de xaa ilan mbir moom may aji wax waaw ah, imtisaalan di aji topp li amrika ñeel li nga xam ne mooy sa ndigal te mooy julli ci yonent bi wa adaan ak joxe li ak rasulika ak xaq sa wa mahabbatan ak am cofeel dégg nga ak cofeel fii mu xaalalati ci xarit toog nag ka ki nga xam ne mooy sab xarit bi de sëñ bi ne nag maa ngi tàmbali nag ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa koon bépp mi ndépp ci àdduna tey ajeeram ku soob ci àlaaxira maa ngi dagaan ci yàlla juli na julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad yàlla na sëlmal ci moom ak sëlmal mu indi ay alquran ji nekk ci alquran fi mu diglee julli ci yonent bi wax ne man yàlla ak samay malaaka ñoo ngi sax dàkk di julli ci yonent bi kon nag yéen ñi gëm di leen julli tey sëlmal donte sax doomu aadama ci dundam benn yoon la julli ci yonent bi farata la de amaana bu dee suñu borom ak malaaka yi moom seen julli amul sëlmal waaye doomu aadama nag day julli di sëlmal sëriñ bi nee na yow suñu borom loolu nga digle ci alquran gannaaw ba nga woote wuyu naa la yow mi nga xam ne texeeg adduna ak àllaaxira ak mboolem xeeti yu yëpp ñi ngi ci yow de man mii nag wuyu la jaam dong laa bu dox di te néew doole lool néew pas-pas lool di toroxlu sa kanam waaye nag di gaaral li nga xam ne moo di bonnik sa ngëneel waaye nag ci yow dong lay sukkandiku ngir sama mbir yéen su ko defee nag maa ngi wax ngir topp sa digle gi nga digle ci alxuraan julli leen ci yonent bi su ko defee itam li ma tax a jóg may julli ci yonent bi mooy fexe xàq googu nga xam ne jaam bu ne ku di ab julli rek am nga sa digganteeg yoon si muy julli ci moom ndax koo xamee ne moo sàkk ñëpp ni julleen yonent bi boo jullit yonent bi kon sa diggante moom am na xaq ju ci dox de booy julli ci moom nag donte benn yoon la rek xaq jooju mooy def nga ko de moo tax sëriñ bi ne kon damaa jóg ngir joxe xaq li nga xamee ne mooy sa yonent bi xaq gi dox sama diggante ak moom waaye itam am cofeel waaw ci xaritoog li nga xam ne moo di sa xarit bi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon booy julli bi da ngay li nga xam ne moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam de wa mahabatan moo di mu ne moo tax mu ne wa mahabatan ak sopp fii muqaalalati ci xaritoo xalilaka sa xarit bi kon li tax muy julli ci yonent ba tey bëgg xaritoog yonent bi bëgg a soppanteeg yonent salaasam waaye bëgg a matal ak xam waaye nag la ca njëkk mooy topp digleeg suñu borom loolu moom moo ci jiitu kon kuy julli ci yonent bi na nga xam ne li jiitu waaw mooy xam na yàlla ko santaane te boo ko defee ndiglu yàlla moom ngay de lool nga war a njëkk a bàyyi xel doog cee teg leneen mu tàmbali julli ne allahumma yow sunu borom yaa rabba muhammadin woo naa wa ali muhammadin ak ñooñ muhammad sol yàlla nga sax dàkk di julli xalaa muhammadin ci kaw muhammad wa ali muhammadin ak ñooñ muhammad wa ci yàlla nga pay muhammadan muhammad sala yàlla nga julli alaa yoo yàlla ali ci kaw muhammad moome wa salamata nga sëlmal ci moom maa huwa loolu moom an loxo yeeloo na ko moog ñoñom ña de mun yow sun borom yow mi nga xam ne yaa moom muhammad moom waa kër muhammad yàlla nga julli ci muhammad julli ci waa kër muhammad yàlla nga pay muhammad sallallahu alayhi wa lépp loo xam ne yelloo na ko moog waa këram de xoolal gi salaatu nu matale rek yaa rabbi muhammad wa ali muhammad daan ni salli muhammad wa ali muhammad wa si muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu waaye xoolal gam ci tegaat allahuma yow sun borom nga sax daakari julli ala muhammadin ci muhammad annabiya ka nga jox xam-xamu nubuwa allumuy kay kojug nday wa aswaaji jullit ci ay soxnaam ummahatil muminina ña nga xam ne ñooy yaayu jullit ñi wa suriyaati julli ci njabootam wa bay bayti ak waa këram yëpp kama salayta comme ni nga jullee woon ala ibrahima ci kaw ibrahima innaka nak yow yàlla xamidun aji sant nga say soppe majidun ku tedd nga de yow sunu borom yàlla nga julli ci kaw yonent bii di muhammad moom mi nga xam ne yaa ko jox xam o nubuwa moom mi nga xam ne mooy ummi mooy koo xam ne dafa juddu jàngut te boo bindee jox ko du ko mën a liir ba noppi ëpp ñëpp xam-xam ummi yi waxoon naa la boo ko waxee ku dul ab yonentu rek kooku danga koo boo fekkoon nit ki rek nga ne ko xamoo dara jàngoo xam ngeen ne da ngeen xeex de waaye boo ko waxee yónent moom kooku moom tàgg la ci moom mu ne jullit ci ay soxnaam ñi nga xam ne ñoo yaayi jullit ñi soxna yónent bi yaayi jullit ñi lañ moo tax kenn mënu leen di takk bi fi yónent bi bàyyi ko kenn du leen takk waaye jullit ci ay njabootam ak ahlu bayti ñëpp comme ni nga jullee woon ci Ibrahima. waaye ku tedd nga de te soppe bi yàlla bok na ci ñi ci jiitu mooy ñu julli ci yónent bi sallallahu alayhi wasallam di woy ay digleem allahuma yow sun borom salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala muhammadin ci kaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala ali muhammadin ak ci kaw ñooñ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa barik yàlla na nga dolli barke ala muhammadin ci kaw yonent yàlla muhammad wa ala ali muhammadin ak ci kaw ñooñ yonent yàlla muhammad warham yàlla na nga dolli yërëm muhammadan muhammad wa ala muhammadan ak ñooñ kër yonent yàlla muhammad kama salayta comme ni nga jullee woon wa baraka ta nga barkeeloon wa tarahamta ta nga yërëmee woon ala ibrahima ci kaw sunu maam Ibrahima wa ali Ibrahima ak waa kër Ibrahima yi innaka naka yow yàlla hamidun aji sant nga say soppe majidun aji tedd nga de. mun yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga julli ci waa këram ñëpp yàlla na nga dolli barke ci kaw yonente yàlla Muhammad yàlla na nga dolli barke ci kaw waa këram yàlla na nga dolli yërëm yonente yàlla Muhammad yàlla na nga dolli yërëm waa kër yonente yàlla Muhammad comme ba noppi ta barkeeloon te yërëmoon sunu maam Ibrahima ba noppi jullee ko barkelee ko aaw te yërëmee ko ay waa këram ñëpp ak Ibrahima comme ni nga ko defee woon noonu rek na nga ko defee ci kaw yonent yàlla Muhammad ndax yow Ibrahima saf soppe la woon ba tey ku tedd la ko koo santoon nga kon nag yow ku kuy sant say soppe nga waaye yow yàlla ba tey ku tedd nga de. allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ala muhammadin ci kaw muhammad wa ala ali muhammadin ak waa kër yonent yàlla muhammad fil awlina ci biir way njëkk ña wal axirina ak way mujj ñëpp wa fil mali ak ci biir mbooloo ma al ahla ma gën a kawe ilaa yomi diine bakki rek bi sa pay bi di taxaw de yow sun borom yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw yonent yàlla muhammad yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw waa kër yonent yàlla muhammad lu toll ni limi way njëkk ña ak way mujj ñëpp ak lu toll ni mboolem malul ahla ñu ñu dëkkee ci asamaan ñëpp monde bépp bu dëkkee ci ñëpp ak ñu dëkkee ci suuf yëpp lim bu toll noonu ba kere bis penc di taxaw nañ ko allahu yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala muhammadin ci kaw yonente yàlla muhammad kama amartana comme ni ñu sante kama amartana comme ni ñu comme ni nga ñu digale an nusuli ni julli ali ci moom wasali yàlla nga julli yow yàlla ala muhammadin ci kaw yonente yàlla muhammad kama yan bixi comme ni nga xamee noonu la yellee an yu sala ba ñuy julli de mun yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme ñi nga digalee comme ni ñu sante ñun jullit ñëpp ñu julli ci moom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi comme ni nga xam ne noonu la yélee ñu julli ci moom rek nanga nga sax dàkk di jullee noonu ci yonent bi salaay salaam yow sunu borom solu yàlla na nga sax dàkk di julli ala ruuhi muhammadin ci kaw ruuhu yonent yàlla muhammad fil arwaax ak ci mboolem ruux yi wa ala jasadi ak ci kaw yaramam bi fil ajsaadi ak mboolem yaram yi wa ala xabri ak ci kaw bàmmeelam bi fil xubóor ak ci mboolem bàmmeel yi yow borom yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw roo gi nga xam ne mooy rooxu yonente yàlla Muhammad ak mboolem arwaax yëpp roo yëpp na nga julli ba tey ci kaw jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem jëmm yëpp na nga julli ba tey ci kaw bàmmeelu yonente bi ak ci kaw mboolem bàmmeel ah bu mën a doon rek. allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala muhammadin ci kaw muhammad wa ala ali ak ñoñam ña wasalim yàlla nga salmal ca moom yow sunu borom yàlla nga sax dàkk julli ci muhammad waaw ah, yàlla nga julli ci ñoñam ñëpp ay soxnaam ñëpp ay ñoñam ñëpp da nga julli ci ñoom te salmal de kon salaa salaatu yu gudduñ de allahumma yow suñu borom salli yàlla nga sax dàkk di julli ala muhammad ci muhammad allah si mooy ki nga xamee ne malaxta feesal nga xal ba xoo xolam ba min jëlaalika sak xëy ba a waxay na xoo bëtam ya min jamaalika ci sak taar fa asbaxa te mu mujj moom yonent bi farihan di aji bég masroran doon ku ñu bégloo mansooran doon ku dimbal dimbale de yow suñu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamee ne xol ak wegeel ak xëy bay sunu borom moo fa fees dell waaye bëti yonent bi dafa fees dell ak taarub yàlla moo tax yonent bi foo ko gis rek day bég doon ku ñu bégloo doon ku ñu dimbale de ndax xëy ba yàlla kum nekk sa xol ba noppi nag jamaalug yàlla taarub yàlla nekk sa bët ku la gis kooku dana la wek ba noppi itam waaw da nga bég gis gi ko bis gis de ngir bëtam yu rafet ya alaa yow nga sax dàkk di julli muhammadin ci kaw muhammad wa ala ali muhammadin ak kaw ñooñ Muhammad salaata man jullit ña nga xamee ne fii samaawaat yi nekk nañ ci li nga xamee ne moo di biir asamaani juróom-ñaari ya wal ardi ak suuf wal ardi ak suuf si wasalam yàlla na nga sëlmalal yi ci kaw yonent bi waajiri yàlla na nga dawal yaa rabbi yow sama borom lut fa ka sag ñeewantu fii am ci samay mbir man sëñ tubaare yow sun borom yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw yonent yàlla Muhammad julli ci waa kër yonent yàlla Muhammad julli gi ni muy toll mu ne julli ñi nekk ci kaw asamaan ak suuf yëpp lim bu toll na nga julli ci yonent bi waaye na ko solmee noonu ci yonent bi waaye maa ngi lay ñaan samay mbiri bopp man sëñ Tuubaa yàlla na nga ci jiital yal na nga ci dawal li nga xam moo di sax ñeewantu allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala na ci kaw sunu sange muhammadin trop mooy muhammad asaabiq aji jiitu la nuuru leeram nga lil xalqi ñeel mbindeef yi wa rahmatil yërmande la lil alamin ñeel mboolem mbindeef yi su xóoroo feeñ feeñ xam ne feeñ na ko de adada man lim bu toll ni ña nga xam ne ma daa woy nañ min xalqiqa li nga xam ne mooy say mbindeef waman baqee ak ñi des mooy ñi nga xamee ne wóyeguñ ñëpp ba ëllëg yomal xiyaam kuy ñëw rek limbu toll noonu laa wax waman sayda ak ña texee minum ca ñoom man saqiya ak ña texee di de waaye salaatan julli xamee ne tas taxriqu dana labale alxadda lim boobu ñu tudd wutu xiitu te dana dana ko bil xaddi ci lim de dana wër lim boobu ba tey salaatan julli goo xam ne laa xaayata diit daya diit benn dayu laxaa di ko ñeel wala ntiha wala diitu jeex de diitu am yemukaay de wala amada te du am benn diir laxaa di ko ñeel boo xam ne bu fa yeggee jeex moom julli ga walan xidaa ci lu dul ak jeex ba tey du caagin ak jeex salaataka sa julli laa wax alati mooy gi nga xam ne salaay salaay te julli nga ko alay ci moom salaatan julli goo xam ne daa imatan aji sax la bi dawaamika kem sax sax baaxiyatan di aji des bi baqaayika ci sax sax boo xamee ne laa amada déet benn diir laxaa di ko ñeel walan xidaa déetu jeex li di ñeel loolee de wasalam yàlla nga salman xale ci moom waxala ali ak wa asaabi ak saxaabaam yëpp kasaalika nag noonu lim bu toll noonu walhamdu mboolem xeeti cant yee ñeent lillaay aji sax la ñeel yàlla ala saalika ci loolu de fukki julli foofu lañ daanee waaye dan yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli fi yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi trop mooy Muhammad mooy ki nga xamee ne balaa yàlla di sàkk aadama ak mboolem bindeef yi leeram gi nekkoon na fi di jaamu yàlla waaye yàlla fiiñal gi mu fiiñal aaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci adduna kooku yërmande la ci mboolem bindeef yi de wa ma arsalnaak ila rahmatan lil alamin la yàlla wax mu ne salaatu gi nag na toll ni limi mboolem ñëway waaw li nga xamee ne moo di say mbindeef ak ñi nga xam ne danañ ñëw ak ña texe ca ñoom ak ñu texe di ndax adduna ñaari fi am ñi texe ak ñu texe mu ne waaye julli goo xamee ne lim boobu ñu tudd ci ñëway waaw ci li nga xam ne moo di say mbindeef yow yàlla ak ñi des ak ñi texe ak ñi texe mu ne lim boobu nag su ko defee julli gi da koy labale lim boobu day labale lépp bu noppi war waraat beneen lim boobu nag waaw mu ne julli goo xam ne nag déet am benn dayo di ko ñeel de wala fu muy yegg yem fa wala ñu ngi wutal ab diir wala muy jeex mu ne nag sab julli goo xam ne sab julli gi nga xam ne julli nga ko ci moom muy julli xam ne day sax ba faw comme ni nga xam noonu nga fee te yow yàlla sax sax gi nga fee sax moom it amul benn diir te du jeex na noonu na ngay jullee ci yonent bi julli góob julli goo xam ne day sax ba faw te du am benn biir te du jeex day sax rek yàlla na nga mal ci kaw yonent bi julli ci waa këram ak saabaam yépp daal di sëlmal ci ñoom ni ko noonu lim bu toll noonu nga julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp de mu ne cant ñeel na yàlla ci loolu de mu ne maratin fukki yoon nga koy jàng nag mu ne wa fii saril xaatimati nekk na ci téere boobu ñuy wax xaatimatu tasuuf ana man rataba koo xam ne tegalante na xaasil xasarata salaat yi yii fukki salaatu nga jàng ko xasara maratin fukki yoon sabaaxan suba wa masaan ak ngoon fatakoon dana nekk al ful ga muy jumla bi maanaam li muy toll dëgg-dëgg mooy mi atan téeméer dégg nga mu ne koo xam ne salaatu yi ñu firi léegi muy fukki salaatu ta benn guddut ci mu ne képp koo xam ne suba gune jàng ko ko fukki yoon ngoon nga jàng ko fukki yoon mu ne loolu day mel ni kon jàng nga ko téeméer yoon dañ la koy fulal téeméer de te loolu tiyaaba ci kenn xam du muy toll salaatu yi nga xam ne man nga ko jàng ci cinq cinquante wala dix cinquante nga wax ko ñu bindal la ko ñu fulal la ko téeméer kon loolu nga ne lu ci nekk bëri na mu ne boo demee ci xaatmatu tasuuf bi nga xamee ne ad daymaan yu moo ko taalif di ci nettali njëriñu salaatu ala nabi mu ne boo demee da nga ci fekk mu wax ne képp ku jàng fukki salaatu yii ñi firi léegi dégg nga jàng ko fukki suba ak ngoon mu ne jumla bi day nekk téeméer day nekk téeméer de te salaatu gi mu ngi tàmbali fii moo tàmbalee allahuma yaa raba wa ali muhammadin salli ala muhammadin wa ali muhammadin wacci muhammadan sallallahu alayhi wa salli ala muhammadin nabil ummi wa aswaajihi ummahatil muminina wa suriyatihi wa ahli baytihi kama salayta ala ibrahima salli ala muhammadin allahuma وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملئ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على روح محمد في الأرواح wa ala jasadihi fil ajsaadi wa ala qabrihi fil quburi allahumma salli ala muhammadin wa ala ahlihi wa sallim allahumma salli ala muhammadin allasi malahta qalbahu min jalalika wa aynahu min jamalika fa asbaha farihan masruran mansuran allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salata man fi samawati wal ardi wa sallim hali wa ajri ya rabbi lutfaka fi amri allahumma salli ala sayyidina muhammadin asabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmati lil alamin suhuruhu عدد من مدى من خلقك ومن بقي ومن صهد منهم ومن سقي صلاة تستخدق الحد وتهيت بالحد صلاة لا قاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقداء صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا أمد لها ولا انقداء لسالك وسلم لي وعلى آلي وأصحابي كسالك والحمد لله على سالك فوفلا فوفليم foofu la salaatu gi yem ñee ne lii la wax nag ñaan gi ma jàng léegi yi mu ne boo demee ci xaadimatu tasu ad daymaan yi wax na fa ne képp koo xam ne jàng na ko fukki yoon nga xëy jàng ko fukki yoon gontu jàng ko fukki yoon day mel ni jumla bi lépp jàngu ko téeméer yoon mooy fuloon nañ rek te yax solo dana am loxo ñeel ko biyaa ci salaatu dana caameri dallahi ngërëmal yàlla al akbari la gën a màgg bu ko waxoon rek doy na sëkk sëkk sëkk ci jàngi koy jàng suba fukki yoon gont jàng ko fukki yoon ñi def ko téeméer ñu ful ko téeméer waaye mu ne la gën a yéeme la ñëpp di wut mooy ngërëmal yàlla la gën a màgg danga ko caameere te ñëpp ngërëmal yàlla rek la ñuy wut saxaaba yi moom lañ leen wut ñu baax ñëpp waaye déglu lam ci tegaat mu ne wala amaana dana am kóllite mooy dana mucc min suxti ci sànjuk yàlla ñëpp jullit ñëpp luñ bëgg donte seen bakkan yi lañ topp waaye sànjugu yàlla moom kenn bëggul ko ku sañoon ci xaritoog yàlla nekk ci lam bëgg mu ne ku koy def xëy fukk ngoon fukk da nga am ngërëmal yàlla gën a màgg da nga mucc ci sànjugu yàlla wa tawaatara te dana toftaloo xale ci arhamatu yërmande yàlla heure bu ne yërmande yàlla boo koy jàng fukk xëy fukk ngoon yërmande yàlla day wàcc sa kaw wal hifsul ilahiyatu wal hifsul ilahiyu ak wuttug yàlla muy buur minal aswaa yi ci lépp lu ñaaw boo koy jàng ba tey yàlla dalay sàmmal boppam di la kaarangel wa tasulu wa tasxulu alayhi ba tey yàlla dana ko yombalal moom ki ko jàng al umuru mboolem xeeti mbir yi de ku koy jàng ba tey sa mbir du jafe mukk waa xasala te dana am lu ko ñëw alxubóola nangu de ba tey ñëpp moom dañuy wut muy xëbool waris ko ak wërsëg waaw nee na salaatu gi koy def xëy fukk ngoon fukk ba ca njëkk mooy ngërëmal yàlla ba ca njëkk mooy suñu borom dana la musal ci ak sànjam yërmande yàlla dana toftaloo di wàcc sa kaw yàlla dana la wotu ci lépp lu ñaaw ba du wàcc sa kaw yàlla dana la yombalal mboolem mbir yi da nga am xabool mooy loo ñaan suñu borom defal la ko da nga am wërsëg de moo tax mu ne wa tas xulu dana yombalal alayhi ci moom kookee jàng ko al umur mboolem xeeti mbir yi maanaam daraan du dëgër de waasal dana am loxo ñeel ko moom ki ko jàng xëy fukk ngoon alxabola dana am ak nangulu ak nanguluk yàlla waris ko ak wërsëg de danga ko am de mu ne wana sax yeexal na sax bandul masaay xel lenn ci sëriñ si ne bi annaha naka moom fukki salaat yooyu afdalul kayfiyaat mooy gën ci tëggin ci salaatu ala nabi de ñu ne moo gën ci salaatu ala nabi yëpp kayfiyaat yëpp ni ñuy jullee ci yonent bi yëpp moo ci gën de moo tax mu ne yeexal na lenn ci sëriñ na moom salaatu googu ñoom salaatu yooyu yëpp nee na afdalul kayfiyaat ñoo gën ci siixa ah fii salaati ci julli ala nabi ci yonent bi sala yàlla julli ala yàlla ci kaw yonent wa salama tamu dooli kóolu de nee am na sëriñ yu wax ne sax mboolem juli yi ñuy jullee ci yonent bi yëpp mooy salaatu yi moo ci féete ko moo ci gënde ci mboolem julli yi ñuy jullee ci yonent bi sallallahu kon salaatu googu foofu lépp muy fukki salaatu gis nga jëriñu ci nekk yëpp kon jar na ko kon mu ñëwaat ci beneen salaatu mu ne wa ama salaatu ndal salaatu alati gi nga xam ne tusuma ñi ngi koy woowee ñi ngi koy tuddee bil kansil bil kansil ensemble muy trésor bi gën a màgg banque bi gën a màgg mooy salaatu gi maanaam la muy tekki rek boo koy jàng mboolem xëyti salaatu àll bi ñeene danañ tuddee ne bii nii mooy banque bi gën a rëy ah banque bi nga xamee ne booy werse ji ah boo léegi yomal xiyaame bu la yàlla wane ne lii mooy sa banque ba nga xamee ne moom nga daan denc say xaalis waaw say jëf yu baax yi daan jullee ci yonent bi nee nañ salaatu gi am na ñu wax ne moo ci gën a màgg moo tax ñu tuddee ko kansul ensemble mooy banque bi gën a màgg trésor bi gën a màgg dencuwaay bi gën a màgg ci xëyti yiw ci xoo xam ne day julli ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne wa ama salaatu ndaal salaatu allati gi nga xam ne tusuma ñu ngi koy tuddee bil kansul ensemble muy ndam li gën a màgg al marwiya tey aji mandal nee na an sayxinaa ñi ngi ko jëlee ci sunu sëriñ bi alxasaali yu xam nga bii nga xam ne fukk fukk la mooy bi ñu romb nii boobu moom xaarima du tasawuf ci la ko jëlee bii nag moom asxaab téere boobu di asxaab imaamul xasaali yu def ko ci la ko jëlee moo tamit an sayxinaa jëlee nañ ci sunu sëriñ bi alxasaali yu imaamu xasaali yàlla na doolee gërëm yàlla taala yàlla mu yaaji kawe xan wëllis ko de nee na jëlee nañ ci sunu sëriñ bi di imaamu xasaali yi yàlla na yàlla doolee gërëm ko imaamu wa nafaanaa te mu dolli ñooy jëriñ bi ci barkeem de yàlla yàlla doon ñooy jëriñ ci barke imaamu Xasaali nee na fa yee moom xaasi yi salaatu googu nag nga xam ne moom lañ kansul ansam moo nekk nii allahuma ijal afdala salawaatika abadan wa an ma barakaatika sarmadan mooy allah bu sun borom ijal na def afdala salawaatika ngën ci sa abadan faw wa an ma barakaatika ak gën kaa sarmadan faw wa aska tahiyaatika ak gën kaa sell say nuyoo fadlan sa ngëneel wa adadan waaw wa adadan ak hadat wa asna waaye nag ak gën caa yëkkatiku salaamika li nga xam ne moo di sag sërmal abadan faw moo tax mu ne borom na nga def ngën ci sag julli faw ak gën kaa dolleeku sag barke faw ak gën kaa sell sag nuyoo loo xamee ne fadlu lay doon ak xadat fadlu ak xadat li leen teqali fadlu mooy loo xam ne yàlla da koo def ci mbaaxam ci ngëneelam xadat mooy loo xam ne mën nañ koo konte mu yem fii lu mel ni nga ne yàlla jullil feeg addunaa ngi am wala jullil feeg bala ñuy tàbbi jeen loolu mooy xadat fadlan nag mooy loo xam ne kenn du xam nam toll waaye mu ne gën kaa yëkkatiku li nga xam ne moo di sa sëlmal faw de allahuma yow suñu borom icaal defal afdala salawaati nga ci sa julli abadan faw ci kaw yonent bi wa an ma barakaatika ak gën kaa dolleeku sag barke sarmaran faw wa aska tahiyaatika ak gën kaa sell sag nayoo fadlan ci loo xam ne lay don wa adadan ak loo xam ne lim lay doon fadlan mooy luñ dul lim adat mooy lu ñuy lim waas naa salaamika ak gën kaa yëkkatiku sag sëlmal abadan faw su ko defee mu jëdadan mu doon lu ñu tëggaat mu doon lu ñu yeesalaat gannaaw bu nga julee julli gu tool noonu mu jëdadan na doon lu ñu tëggaat beneen tëggaat beneen yeesalaat ala asrafil xalaa'iqil insaniyati nang ko sotti ci kaw yonent bi nga xamee ne mooy ki gën a tedd ci mboolem bindeef yi nga xam ne doomu aadama lañ aaw yore bopp yore tànk loolu mooy insaniyati képp koo xamee ne am na bopp yore tànk rek aaw di wax lu leer ñi di ko dégg kooku insaniyati dañ koy tuddee la sa yëpp laat mu baax ma doon waxee rek nit daal buñ ne nit mooy koo xam ne yor na tànk bu noppi nag yor bopp kooku moy nit muy nag julli kooku moo wax na sot ci kaw yonent bi nga xam ne mooy ki gën a tedd ci mboolem mbindeef yi nga xamee ne mooy doomu aadama ndax lu yàlla sàkk lu ne rek doomu aadama ci gën a tedd moom la gën a teral kon bu waxee ne moo gën a tedd ci mbindeefi doomu aadama kon jeex na de waaye wa maj mayal xalaayiqal imaaniyati mooy daje waayu mbindeef yi nga xamee ne dañoo am imaaniyati mooy li nga xamee ne ak gëm yàlla ak dignité ak gëm yàlla mboolem mi gëm yàlla seen daje waay yépp mooy bëgg yonente yàlla Muhammad mom dañuy bëgg a dëkk ëllëg yowmal xiyaam ci aljana moom la ñuy bëgg mu rambu leen moom la ñuy bëgg fu ñu jaaxle mu xettil leen kooku kon wa maj mayal xalaayiqal imaaniyati mooy daje waaye mbindeef yi nga xam ne dañoo am imaaniyati waaye wa tawrel tajaliyaatil insaaniyati mooy état bu fii ñu waaye rafetal yi mbooleem xeeti insaan yi kooku ci moom lañ koy séentoo ci moom la ñuy moom ci moom lañ koy séentoo ci moom lay bay ko tajaliyaat yépp gannaaw bañ bay ci yàlla mu def ko ci moom ci moom lay feeñee képp ko am insaniyati muy ak rafetal muy ak tasoof di def te yàlla tax donte gisoo sax ci borom waaye nga xam ne sa borom mi ngi lay gis di def muraqabatul kubra ak suxra tajaliyaat yooyu yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay bay ko ne di jaar ci mboolem awliya uy moo tax ñu bëgg awliya u boo dem rek sëñ Tuubaa nettaloon na ko ci Kanzul diina nee na boo demee ci awliya yi sàkkul ci moom mu tëbb la ndax awliya u woowu te bégut ci kenn ku dul yonent yàlla Muhammad ay tajiliyaatam rek ñoo nekk foofu de ci ñoo bay ko ci yonent bi ñëw ci awliyaa bo kon boo demee ci awliyaa waaw na nga tëbbu ci moom mu tëbbu la de kon ay xi imaan yite mooy daje waa mbindeef yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo am iman de muy lu ñuy tuddee gëm yàlla wa tawri tajiliyaatil insaniyati waaye mooy état bu fii ñu waaye ak tasuuf ak rafetal waaw tasuuf ci moom la cosaano tajiliyaat yëpp aw ci moom lay bàyyi di ñëw ci doomu aadama yi de wa max rahmaniyati mooy sippeeku mooy sippeeku waayu aw sekk rek yàlla yi de yàlla yëpp ci moom la ko yàlla dinc ci moom la ko yàlla dëxëñ moom la ko yàlla jox de mboolem secret bu doomu aadama mën a am rek wala mu xam ko te muy secret bu weer bu béy ko ci yàlla kooku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw kooku foofu lañ ko talsam de foofu lañ ko denc foofu lañ ko sippi de kenn mëntu am ci secret rek yàlla yi lurut aw ci yonent bi lay bay ko de moo tamit wa mahbitul asraari rahmaniyati mooy sippe mooy sippeeku waaye secret rek yàlla yi de waaw kooku moom loo bëgg ci secret rek te bëgg koo xam te moo doon secret yoo xam ne yu wér la yu bay ko ci yàlla kooku ci yonent la ko yàlla def de waaye moom yonent boobu waasitati hiqdi nabiyina mooy caq bi nekk ci digg yonent yi ni nga xam ne noonu lay mel ci biir saxaaba yi naka sëñ Tuubaa tagee ci xasida googu ra'iya nga xam na yonent bi bu nekkee ci biir saxaaba yi day mel ni ab jant waaw saxaaba yi doon ay bidiw wala nam ko waxee ci jasbul xulub nga xam ne yonent bi sallallahu bi mu waajee ba jëm ci xare ba dar noonu mu misaalee ko rek nga xam ne dafa mel ni bidiw yoo xam ne dañoo wër weer waaw xam nga weer yi moo leen ëpp leer wala nga ne weer yoo xam ne dañoo wër jant jant moo leen ëpp leer yonent bi noonu la mel ci digg yonent yi de kooku mooy waasitati bi nabiina mooy caq bi nga xamee ne moo nekk ci digg yonent yi de waaye wa muqaddimil jaysil mursalina mooy aji jiital lëlu mboolem yonente yi de yonente yëpp mooy seen jiit de gannaaw ba mu nekkee caq bu nekk seen digg te caq bu nekk ci digg moo gën a am waloor waaw moo leen jiite ñoom ñëpp yonente yëpp waaw lëlu yonente yëpp mooy seen jiit moom yonente yàlla Muhammad waaye waqaa'idi rakbil anbiyaa yi mooy aji womat gawru yonente yi al mukarramin ñett yi teral de ña yàlla teral ñëpp ci leen di womat ci seenu noos waaw ñu topp ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy yonente bi waaw dalil xalq mooy ki ngën ci mbindeef yàlla yi aj mexee ñoom ñëpp yonent boobu may wax bindeef yàlla yëpp moo ci amut kii amut ka xaamile li waa ul xinsin mooy aji yenu aaw drapeau te danga ba al ala ba gën a kawe li waa ul xamdi ëllëg yomal qiyaam moo koy yenu wëllu yëpp dugg ca de aaw yonente ñu baax ñëpp dugg ca de kooku dara jooju rek moo ko am de wa malikil asimatil majdi aaw mooy aji moom noosu te danga al asna ba gën a kawe aaw bu ëllëg yomal qiyaame yàlla jox na ko noosu danga mooy mu sañ a womat mboolem ñu baax ñi aw te mooy noos bi gën a kawe ci mboolem noos yi yàlla di joxe nee na mooy aji moom noosu tedd nga bi gën a yëkkati ko bi gën a kawe de waaye saahidu asraaril asali mooy aji jàkkaarloo mbuuti asal ya wa musaahidi anwaaril sawaabiqi mooy aji jàkkaarloo ba tey leeri way jiitu ñëpp al awli ñedi way njëkk de nee na leeri aw ah, mooy ki jàkkaarloo moom yonent bi yàlla may na ko mbuuti asal asal mooy bi xamee ne suñu borom sàkk na lépp lépp day mel ni yonent bi suñu borom wuññi na ko loolu yëpp mu jàkkaarloog moom ci bëti xolam waaye may na ko mu jàkkaarloo mboolem leer yi way jiitu ña ñi jiitu woon ñëpp te njëkkoon fii waaw kooku suñu borom may na xolam bi muy jàkkaarloo lool yëpp de moo tax mu ne saahidi asraaril asali mooy ki jàkkaarloo mbooti asal ya waaw bi yàlla amoo amalagut dara. waaw loolu suñu borom may na bëti xolam mu di ko jàkkaarloo ndax bi yàlla sàkku dara booba leer loon di jaamu borom moo tax yàlla biñ ko sàkkee itam may ko gis li xewoon foofu yëpp. waaye woo wa musahidi anwaari sawabiqi waaye mooy aji jàkkaarloo leer yi leer yi nga xam ne moo di way jiite de mboolem xeeti leer yëpp ak ñi fi jiitoon ñëpp doon leer di jaamu seen borom yàlla wan na ko loolu muy jàkkaarloo moom moom yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam de kon kooko yonente yàlla muhammad moo tax mu ne wa musahidi aji jàkkaarloo la anwaari sawabiqi leer yi way jiitu ñëpp al awli ñi di way njëkk ñëpp seen leer yonente yàlla muhammad suñu borom may na ko muy jàkkaarloo ak ñoom de sallallahu alayhi wasallam yonent boobu sallallahu alayhi wasallam tarjumaane lisaanil qadami mooy ki leeral làmmiñu jiitu moom yonent sallallahu alayhi wasallam wa man bayan xen mi mooy balluwaayu xam-xam yi wal hilmi ak balluwaayu lewet wal hikami ak balluwaayu mboolem xam-xamu hikami njëriñ yi wa masxari siril joodi mooy feeñu waayi waaw mbuutum tab al jus iya moo xam yi ñuy wal kulliya wala kulliya de nee na làmmiñ ak jiitu yonentu sallallahu alayhi moo ko tarjumaan moo ko leer buñ na tarjumaan mooy lu mel ni firi alquran loolu la ñuy tuddee tarjumaan leeral ko ci langu wolof wala ki xalaat di bind ci araab kooku tarjumaan lañ koy tuddee waaye yonentu sallallahu alayhi wasallam jiitu yonentu sallallahu alayhi moo ko leeral mooy ki nga xamee ne mooy balluwaay xam-xam xam-xam yépp yu am njëriñ yépp ci moom la ñuy balle mboolem xeeti lewet yi ci yonentu sallallahu la ñuy balle mboolem xam-xam yu am njëriñ yëpp waaw ci ci yonent salaasam la ñu béykoo ku ci mën a am xam-xam itam xam-xam ba ci yonent bi la béykoo lewet ca moom la béykoo ndax Sëñ Tuubaa wax na ci raaya ba tey ne nee na lewet gi nga xam ne na ko doj sax lewetewul ko de yàgg naa daje ay lor yuñ koy lor ba sonn moom yonent bi waaye mu lewet rek nee na lewetam sax moo gën a lewet doj de waaye yonent bopp mooy feeñu waayu tab mbuutum tab li ñuy wax mbuutum ci moom la ko yàlla sippi ku am tab ku ne rek da nga ci doon yonent bi tuuti rek waaye ci moom la feeñee de waaw ci jus yi ak kulli yëpp buñ ne jus yi ak kulli jusu moom buñ ko waxee rek lu mel ni nga tiyoon ab kaamil jàng ci tuuti kon loolu xaaj bi nga jàng boo jàngee lépp nag loolu moo doon kulliya kon lépp loo gis rek dafa am xaaj-xaaj am kulliya lu mel ni asamaan ñi la juróom-ñaar la kon juróom-ñaar la lu mel ni ñi la suuf ñaata la nga le suuf juróom-ñaar la géej gi ñaata la nga ne la kon dafa am lu ñuy wax jus eh, buñ la mbindeef nag moom da ngay xam ne nit ñëpp ciy dugg képp kuy nit rek waaw kullee lépp lañ jublu de buñ ne nag kon mën naa doon ay jus eh, ay xaaj-xaaj suufu benneel ba ñaareel ñetteel ñeenteel juróomeel juróom benn juróom-ñaar loolu mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy feeñu waaye mbootum tab ci mboolem xaaj-xaaj ak mboolem kulliyaat yi lépp lépp rek ak xaaj-xaaj yi waaw nañ ko séddale yonent sallallahu alayhi wasallam mooy feeñu waayam mbootum li nga xam ne moo di ak tabde waaye yonent bi sallallahu moom moomu di bi wa insaani aynil wujudil ulwi wa sufli wa insaani aynil wujudi mooy jëmm joo xamee ne moo tax yàlla amal lépp lu lu amal alxul yi moo xam ñu dëkkee kaw wa suuf ak suuf yëpp yàlla nee na yonentu rek laa sàkk ngir man lu ma sàkk te rek amal ko dama ko amal ci barke bi yonentu sallallahu alayhi wasallam kooku mooy insaani aynil wujudi nga xam ne mooy domaano bi nga xamee ne jëmm yi am yëpp ci waa kaw ak suuf yëpp waaw moo tax njaam de moom yonentu sallallahu alayhi wasallam de ruuxu jasadil kaw nay nii mooy ruuxu jëmmuk waaw adduna ak alaxira de adduna ak alaxira bu doon jëmm ruux gi koy doxal mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam de kon googu tagg foofu la de kon ruuxi jasadil kaw ne ni mooy ruuxu yaram wi nga xam ne mooy adduna ak àllaaxira ba yaram ta amul ruux ndax lu amul ruux rek dootu nekk di dootu mën a dox waaw kooku mooy yonent salaa salaam de waaye wa ay nii xayaati daaree ni mooy jëmm ji nga xamee ne mooy dundal adduna ak àllaaxira de yonent salaa alayhi salaam ba tey adduna li fi dund lépp ak àllaaxira ta yonent salaa alayhi salaam la ci moom la bàyyi ko boo moo tax ma ne waxay ni ayaati daarin mooy jëmmi dund ak adduna ak àllaaxira fi nekk lépp waaw yonent sallallahu alayhi wa de ci barkeem la de al mutaaqiq tey aji dëggu de bi ahla rutbati ci gën kaa kawe waaw darajay on boodite ak jaamu wal mutaxalliqi tey aji jukkoo bi axlaaqil maqaamaatil listifaiyati ci jukkoo maqaamaati mboolem yonent yi waaw alxalili tey xaritoob yàlla ba al ansami doon ko gën a màgg al habibi doon soppeeb yàlla ba al akrami doon ko gën a tedd nabi doon sob yonentu al asimi ka daaji màgg wa rasul ko doon daw li ko yónni ci mboolem mi dee fi al karimi kay aji tedd al haaji kay aji gindi mi dee fi gannaaw ila siraati jëmee ci sa yoonu al mustaqim wa daaji jub sayidina kooku mooy sunu sang bi wa nabina mooy sunu yonentu wa mawlana doon sunu kilifa wa habibi naata doon sunu soppe wa tabibi naata doon sunu ibnu abdullahi doom la ci abdullahi ibnu abdul mutalib ci abdul ibnu hasim di doom ci ki nga xamee ne moo wa ala ali na julli ci waa këram waa saabi ak sahabaam ya wa suryaati ak njabootam ya afdala salawaatin gën ci ak julli wa aska salaamin gën gën kaa sell ci ak sëlmal wa an ma barakatin ak gën kaa dolleeku ci barke adada maxloo maatika limu lépp lu ñu xam wa midaadi kalimaatika ak limi say kullama sakaraka lépp loo xam ne tudd na ko wa sakarahu wala mu fàtte ko tudd asakirona way tudd ñëre wa kullama xafala lépp loo xam ne sàggane na ko an sikrika wali sa tudd wa sikrihi dégg nga wa sikrihi wala tudd alxaafiloona way sàggan yëpp wasalim yàlla na nga salmal tasliman salmal kasiran gudaa ji bëri tayiban gudaa ji tey baarakan gadu guñ barkeel fii loolu nekk na ci pay gu yaatu te bëri goo xamee daa iman day sax faw bii dawaa mi ka kem sax gi nga xamee ne moom nga fii sax baaqiyan tey aji des bi baxaay ka ci sax des gi kama bi comme ni nga ko bëggee anta yow wartar daata nga gërëmee ko noone war a dee yàlla na nga doolee gërëm allah yàlla yow yàlla ani saxaabate wali saxaaba yonent yi aj ma xeena mboolem seen wali saxaaba yonent bi aj meena mboolem seen subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati moom yi borom tedd nga xammaa yi ci foon walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak jaaju wasalaamun jàmm alal mursalina yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni walhamdu melo sax dàkk te rafet lii laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin muy borom bi ndefi de kon salaatu gi guddi moo tax ñu dawree kon dafa daloon nag yonent bi mooy ay ni xayaati daaray ni al mutahaqiqi gannaaw bam nekkee adduna ak àllaaxira mooy ruu koy doxal waaye dund gi nga xamee ne moom la fi nit di dund ba am martaba mu kawe ba mën a làq jukk yu tedd yi loolu yëpp waaw ci moom la bay ko di moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki gën a yëkkatiku daraja yu ubudiyya mooy ki nga xam ne suñu borom takal na ko mboolem jukkoo yonent yi maqaam muñ am yëpp suñu borom takkal na ko ko mooy xaritub yàlla bi mooy ki gën a màgg mooy soppeeb yàlla mooy ki yàlla teral mooy ku tedd mooy yonentub yàlla bi yàlla jox xam-xamu nubuwa mooy ku màgg mooy sa ndaw yow yàlla mooy ku tedd gi mooy kiy gindi nit ñi di leen jëmee ci yoonu siraatal mustaqim kooku mooy sunu sang bi di sunu yonentu di sunu kilifa di sunu soppe mooy docteur bu ñuy faj turam mooy Muhammad mooy doom ci Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibnu Hasim ñooñu ay maamam lañ yàlla na nga julli ci waa këram nag ak saxaabaam yépp julli ci ay soxnaam julli ci njabootam waaye nag julli ga gën waaye nag ga gën a sell gën caa sell sëlmal ah sëlmal ga ca gën a sell ak julli ga ca gën na ko julli ci kawam waaye nag barke boo xam ne waxtu ne day dooleeku waaw lu toll nit li mu loo xamee ne mooy sa xam-xam de adada maxluumaatika mooy lu toll ni limu sax xam-xam lépp loo xam ne xam-xamu yàlla kenn xamu nu mu toll te yàlla lépp loo xam ne lim boobu nag na nga ko julli ci yonent bi ak lu toll ni limi say baat lépp loo xam ne baati yàlla yi la yépp te mu doon baat yi mat a ah, mu ne na ko julli ci yonent lim bu toll na de na nga ko julli limu mboolem ñi nga xam ne dañ lay fàttaliku du bu toll noonu ak ñi nga xam ne sàggana tax duñ la tudd duñ la fàttaliku lim toll noonu na nga ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam de loolu mooy kullama sakara wa sakarahu sakiroon mboolem ñuy tudd yàlla di ko fàttaliku lim bu toll noonu nañ ko julli corante bi wa kullu ma xafala an sikrika wa sikril xaafiloon waaw mu ne lim bi lim bu toll ni ñi sàggaan la ñuy tudd la ñuy tudd ah, ak lu mën a doon ak nag liñ la sàgganee tudd yëpp na nga ko julli corante bi sallallahu alayhi wasallam yaa na nga sëlmal ak goo xam ne gu bëri lay doon gu teey gu ñu barkeel a ah, ci biir sëlmal goo nga xam ne pay gu yaatu te bëri lool boo xam ne day sax ba faw comme ni nga xam ne noonu nga fee te doo fi jógee mukk waaw na ko defee comme ni nga ko bëggee yow yàlla te gërëmee ko noonu te yàlla na nga doolee gërëm mboolem ay saabaam yëpp maa ngi tudd sax sell yow yàlla muy borom tedd nga dina sëri lépp lu ñu lay melal ci ay dof gi caaju jaamu yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni melul sax dàkk te rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi nga xam ne mooy borom bi dee fi dee allahu yow sun borom kama safayta comme ni nga saafara bi ci mu almarda tawadi wa jàll ta nga def taaxatu ak toppam alal hebaada waaw ci jaam ñi fardan muy farata de yow yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi ci ngay saafara mboolem xëyti tawat yi de mboolem ku yor tawat rek waaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ngooy saafara ba tey yaa def mboolem jaam ni topp guñ koy mu doon farata mu ne imlan kon nag yàlla na nga feesal bi salwaati ka sëg julli ali ci yonent bi al akwaana mboolem monde sama sama an yi nekk ci asamaan wa ardan ak yu nekk ci suuf wa balixu yàlla na nga ko jotal moom yonent bi umniyatoo ay mbébétam xataa yardaa ba mu kontaan ba mu gërëm de mu ne yàlla yow mi nga xamee nag ci darajaam moom yonent boobu ci ngay saafara mboolem xeeti tawat yi waaw te moom saafara nga amul benn tawat bu nekk ci moom yaa ba noppi nga def topp gi ko jaam yi di topp mu doon farata de kon nag yàlla na nga feesal sa julli julli yoo xamee ne mbond yi nekk asamaan ak suuf yëpp da koy fees dell ba du am fu waaw ah, yàlla na nga ko jotal li nga xam ne moo di mbébétam ba rek muy gërëm de ba ke rek muy bég de waaye wasalaatu yàlla na nga dolli julli wasalaama ak salman ala jamiil anbiya yi ci mboolem yonent yi ci mboolem anbiya yi ñi nga jox xam-xamu nubuwwata yónni hoo leen wala mursalin ak mboolem ña nga yónni ña nga jox xam-xamu nubuwwata yónni leen wala am du mboolem xeeti cant yee ñeent lii laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin muy borom bi defi de maa ngi dagaan yàlla soog julli bànd koog sëlmal nga julli ko ci ki nga xam ne aaw mboolem anbiya ak mursalin yëpp mooy seen jiit waaw ñoom ñëpp la nekk ci ñoom ñëpp mi ngi ci moom de te am na lu nekk ci moom loo xam ne nekkul ci anbiya ak mursalina waaw kon kooku mooy ki dajale anbiya u yëpp moo tax wa salaatu yàlla na nga julli wa salaam ak sëlmal ala jamil anbiya ci ki nga xam ne mooy ki dajale anbiya u yëpp waaw ñoom ñëpp mooy seen jiit mo mujj ci ñoom. li nekk ci anbiya yëpp mi ngi ci moom am lu nekk am lu nekk ci moom te nekkul ci anbiya yi ah mu ne nag cant ñeel na yàlla muy borom bindeef yi mu ne waan baax di saalina jëri nañ ci lenn ci way baax yi ne annahoo naka moom xara dafa jàngoon xaasi salaatu gi salaatu fii leelatin ci guddi wa mu neloo nag wara a mu gis ka an na qaa'ilan a ah, koo xam ne da koy wax naka aji wax yoqoolu mu ngi koy wax naan ko salaatu gi salaatu laa aaw kenn xamut kenn mëntu takk sawaaba yoolam ilallahu kudut yàlla taala yàlla muy aji kawe waxaat arxamtana sonnal nga nu sonnal nga nu nee na rawaahu nettali na ko nag alxasaali imaamu xasaali wa xayruhu ak kudut de nee na salaatu gi ñu doon di salaatu goo xam ne salaatu gu am doole la di salaatu goo xam ne gu am solo te mi ngi allahuma ijaal afdala salawaatika abadan wa anma barakaatika sarmadan wa aska tahiyaatika fadlan wa adadan wa asna salaamika abadan mujaddadan ala asrafi alxalaayiq alinsaaniyati wa majmaci alxalaayiq alimaaniyati wa tawli altajriyaati alinsaaniyati wa mahbiti alasraari rahmaaniyati wa ashitati hiqdi nabiyiina wa muqaddimi jeysi almursaliina wa qaa'idi rakbi alanbiyaai almukarramiina wa afdali alxalqi ajmaciina xaamili liwaa ilhasi al ahla wa malik al asimati al majdi al asna saahidi asraari al asali wa musaahidi anwaari sawaabiqi al awali tarjumaani lisaani al qidami wa manbai al ilmi wal hilmi wal hikami wa masaari siril joodi al jus'i wal kulli wa insaani hayni al wujudi al ulwi wa sufli ruuhi jasadi al kawnayi wa ayni hayaati daareeni al mutaaqiqi bi ala rutbati al ubudiyati wal mutaqalliqi bi axlaaqi al maqaamaati لاستفائية القليل الأعصم الحبيب الأكرم نبيك العظيم ورسولك الكريم الهادي إلى صراط المستقيم سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما سكرك وسكره الساكرون وكل ما قفل عن سكرك وسكري القافلون وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جسيرا دائما بدوامك باقيا ببقائك كما تحب أنت وترضى رضي الله عن الصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين اللهم كما صفيت به المرضى وجعلت طاعة على العباد فردا املح بصلواتك للأكوان سماء وأرضا وبلغ أمنيته a yarda wa salaatu wa salaamu ala jamii al anbiyaa wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nee na nag wa an ba'di saalihin annahu qara'a salaatu fi laylatin wa naama wa ra'a ka anna qaa'ilan yaqulu haasihi salaatu laa yuxsi sawaaba ila allahu taala waqad athabna waqad athabtana rawaahu al wa xayruhu mu ne leen ci gaa yu baaxi salaatu gi ma jàng léegi nee dafa jàngoon salaatu gi tëdd guddi di nelaw waaw ba muy nelaw nag am ku koy wax na ko yow salaatu gi kanaa xamoon yool wi ci nekk kenn mënu koo takk ku dul yàlla waaye bu ñu sonnal waay waa ji loolu la ko wax ci nelaw de bu ñu sonnal kon day mel ne salaatu gi boo ko jullee mel nga ni lépp lu yàlla sàkk rek lim bu toll ko de nee na waa ji bi ko jàngee rek ba noppi te di nelaw rek waaw ci biir nelaw yooyu